واجبا دايلا ويا ما خسر الانس والجنين رسول الله اليكم واجبا mbokki Sénégo TV ñu ngi noonu au cœur de l' appel de Seydina Limamou Laye al Mahdiyu ñu ngi ci 142e appel bi ñu ngi fii nag kër sëñ Mor Thiaw Laye radiallahu anhu moom bu Seydi Abdoulaye Thiaw Laye moom itamit ñu koy ñaanal fa mu nekk gënal ko fa mu jóge lii nag ñu leen di woon nag mbokk yi moom mooy déjeuner royal bi nga xamante ni moom lañ njaboot gi di maanam ganalee ñi nga xamante ñoom ñoo ñoo wuyu su seen woote mam bi kon Seydina Alioune yow mi ci caméra bi kon amul wax ju bëri nañ leen woon rek li nga xamante ni moom la gars yi dressé moom lañ leen fi tegal ngir mbernde yi jàmbaar tur bi nan la. la. waaw Mouhamed euh, bu Pakowan defe naa yéen a amee lu jëm ci wàllu mberndey walla lii mooy lan ci lan nga nekk nii. waaw ñu si dibiteri Pakowan. waaw dibiteri moom xam nga rek. jamono yi jarul ñu koy présenté kenn. waaw instant yi moom lay ñëw pour berne jaam yi daal si affaire yi. lu la fekk ngay def ni waaw ñii dañuy tracé instant yi nii. waaw nettoyé ko. dagg soog a lakk. maanaam lii dibi la wala añ la wala. dibi añ la. Hmm. waaw añ bi la. togg bi nu mu nar a demee. waaw instant ñu ko mënee tënkal rek waaw instant yii dañ ko tracé nii ba noppi dañuy ñëw dagg. Mhm. lakk ko gis nga yéene ay méchoui la. yii ay méchoui la. Mhm. waaw mu ngi pare service gars yi. ci mën a am ay méchoui ay. méchoui dibi naturel. waaw noonu lay demee dañ koy lakk rek jox gars yi. am na spécial am na méchoui. waaw ak dibi internet yi dégguñu lu baax xam nga sama genre yi moom yii la bañ a gis waxaatal ma dégg. dibi bi daal mu ngi nii xar bi dañ koy tracé. Mhm. yaa ngi dégg après instant yi ñu lakk ko am na méchoui mhm. am na dibi naturel. waaw dibi différence bi. différence bi mooy xam nga bii am na maam euh, bii day ñor. Mhm. day ñor ñor bu ëpp bii day ñor ñor bu yem bii day ñor ñor seeñaa boobu mooy dibi daar daar. ba tey ba tey lekkable non lépp normal moom. waaw yëpp nice. kon bu ñu ci tracé bi ak ci dàggati bi ñu jëm ci làkk gi kon ma avancé ci làkk gi waaw seet naa bu ñu jógee ci premier partie bi nga xamante ni rey nañ xar bi daggati nañ ko ba waajal ko dañuy ñëw ci làkk gi ki yore làkk gi mooy kan mooy Issa Issa yow kon loo ñuy leeral la ci wàllu làkk gi làkk bi Allah làkk na trop soo lekkee da ngay xam ne gi yow noo koy gérer noo koy waaw nga tënkal ñu ko rek ah, làkk yi yëpp am na mhm. waaw loolu la laa bëgg a wax waaw. maanaam gi maanaam dafa ay xeetu lakk wala. déedéet làkk bi kay. Hmm. macha allah dara manqué loolu. Hmm. waaw mais internet yi xanaa da nga ragal micro yi sama gaay ne waaye sa waa ji moom xanaa mënul wax waxal mu leer gars comprendre. waaw olof bi mooy mel noonu. Hmm. waaw olof bi ah, waaw yow mëne woo olof bi quoi yow làkk gi daa nga see donc li ngay làkk ni yàpp lan la. wa yàpp entier. mos am na waaw est-ce que mën naa mos wala ma xam yàpp bi ndax neex na wala neexul jox ma benn ma mos en attendant waaw seet naa yow filmel leen la sant de waaw seet leen la sant bismillah internet maa ngi leen lekkaaleel hmm? Hmm? ah na naa li ma jot a mosagum wax dëgg fa yàlla li ma ci metti rek mooy mayu ma la mos waaye neex na mais nag yàpp gi bu neexee dafa am lu ko safal dañu dem ci ki ko safal mais mais soxna si balaa ma laa laaj tur bi lu ma la fekk ngay def. man maa ngi ci kii bi sauce verte bi. Hmm. waa wax internet yaay kan. <laughs> man yow loo féetewoo ci wàllu togg dibi bi. waaw man moom maa ngi ci côté cuisine bi comme piquage yeeg sauce verte yeeg marinade yeeg yooyu moom la ñuy defar. Hmm. soble bi. gaa yi di lekk dibi damay gis dañuy bëgg a soble ci wet gi lan la ci. waaw soble bi après piquage bi moom lañ ciy def dan am na ñoo xam ne dañuy préféré pour ñu lakkaale ko am ci ñoo xam ne duñu bëgg pour ñu lakkaale ko dañ koy bay à part bu fekkee dibi bi. Hmm. safal safal daanaka ñoom ñooy nga xam ne mënta ñàkk ci dibi. comme piquage bi lii waa piquage bi après buñ ko buñ lakkee yàpp bi ba muy wàcc buñ koy daas ci lañ koy def composant yi ay comme famille verte lay doon ak euh, ay yooyu lay doon ak ay mas yi parfois duñ ci def mas parce que da ciy am ñoo xam duñu lekk mas yi yooyu moo tax kon mbokk yi lii mooy partie dibi bi moom laa leen tënkal noonu ak Seydina ci caméra gi léegi bu nu fi jógee war nañ dem ca bâche ba ndax tey déjeuner royal lañ woote fii ci kër sëñ Mor bu Seydi Abdoulaye Thiaw Laye ñu leen di ñaanal yàlla yàlla yokk seen leer tax ñu ci seen i barke. Euh, Baye abu defe naa yow it yombalal nga ñu accès bi ndax lii nii yëpp tamit jàppandel gi am na ci solo lool kon mbokki internet ñu avancé indil leen yeneen surprise ak Seydina. voilà Seydina ki ma jàkkaarloo man duma ko présenté ndax askanu Sénégal miin nañ ko. ci wàllu communication traditionnelle dama koy bàyyi rek mu présenté boppam wax nu teewaayam fii ci kër sëñ Mor Thiaw bu Seydi Abdoulaye Thiaw Laay yal na yàlla yokk seen leer xamante ni ñu ngi ci 142e appel bi lan moo waral seen teewaay ginnaaw bi nga nuyoo internet yi te wax leen yaay kan nag ndax duma leen ko wax. ngeen jëf mbokki àdduna bépp maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziare yéen ñii nga xam yéen yéen yéen a waa Sénégal Sénégal <laughs> ci Sénégal Sélé Gorée moom mboolem yëpp yu baax yi ñoo koy tas ci réew mi ñuy sant yàlla bu baax di julli ci Moustapha sangub sang yi di leen ci dara darajee sëñ Bamba seen tànk yi ngeen dox ba ñëw yàlla na ngeen ci dajeeg tafafeexi sëriñ bi sunu xol sedd na lool fii ngeen nu fekk nag ki nga xam ne moom kër gi doom day sunu xarit di Ablaye Thiaw di nit koo xam ni diine ko ñor ak lislaam te nag yàqul liggéey bu waajuram maamam Seydina Limaamu liggéey ci réew mi liggéey boo xam ba àdduna tukki du fay dama koy faral di wax naan ko randal géej dëkk moom samaam rek ko def keneen ku am engagement boobu na ñëw def waaye géej gi randul ma dëkk maam rek ko def waaye nag tey ku ñëw ku ñëw Cambérène di nga xam ne Seydina Limaamu yàlla fay na ko waaye yonent bi fay na ko ndax nag ku gis mbooloo mi ak embouteillage bi am ci dëkk bi nit ñi kenn mënta dem kenn mënta jàll oto yi circulation bi da ngay xam ni kii ki nit ñi ji ku jërë wuy ji la muy nit koo xam ne tubaarkàlla macha allah fu ne nit jóge na fa ñëw ci dëkk bi ngir sàkku si ak ñaan muy dëkk boo xam ni barab la boo xam ni ku fi sàkku ñaan boo demee di nga xam ni demal nga ci barab sàkku nga fa ñaan ndax boo demee la nga woon lépp ci kàttanu yàlla di nga jàkkaarloog moom Seydina Limaamu nag bu ñuy wax ci moom ba déwén fii la ñuy fanaan waaye ginnaaw man damay tuut tànk di Moustapha géwélub Serigne Fallou Alaaji Sañang Mbay mii ngeen di jox euh, kàddu waaw moom mu daal di salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu yéen waa ñu ngi leen di di leen ziar Euh, tey jii ñu ne fii ci kër sëriñ Mor Laye ñu koy ñaanal suñu borom xaari ko àjjana di siyaare Abdoulaye Thiaw Laye mi nga xam ne moonu fi di tey nag di bisub appel bi Abdoulaye Thiaw Laye seq kook Ndakaaru ndax Abdoulaye Thiaw Laye day nit koo xam ne gannaaw ba suñ Mor Laye judee fépp fu nit ku baax ne jaxasoo naa ak moom fépp foo xam ne nit ku baax la fa mi ngi fay xencu boo demee tey ci kër gi waa Tivaouane danañ fi nekk waa tubaa danañ fi nekk fépp fu waay fu baax fu nit ku baax nekk dana ñëw seet si ko ndax moo ko seq ak nit ñi moom nag day ndakaaru ndax Rose Diagne mi ko jur ba siri Diagne moo ko jur mu Mariam Diop Makhtar Penda Jigal moo waral kër gi tey da ngeen fi gis ne mu baax lool nag nekk ca la maam ja woote woon daa woon woon aaji boo daa yàllaay woote bi yàlla bu dong ci la nekk mu Ablaye Thiaw laay ku ñëw tey lu ne dana fi bernde lu nekk dana fi tey jii ci kër gi bernde gi ku gis baas bi léegi ah. gis taabal yi mu def xam ne wàññi bis bi Ablaye Thiaw laay nit ku baax la ah ku fi ñëw da nga sant bu baax dara manqué wul oño yeeg pitax yépp a ngi fi tey daal dara du manqué sëñ bi waaw laay naa te waaye mel na ni ñëpp ndax ñëpp aay ndax Seydina Limaamu pour ñëpp la woon ndax ab Ablaye euh, xalifa bi boo demee ci xalifa bu Laayeen bii fi jógee bu yàggul boo demee kër Cheikh Ablaye Thiaw am na siñ Mbàkke laay si Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma la ko tuddee am na Ibou Sakho rafetal yooyu mag yi ne woon ci la Ablaye Thiaw laay mii ne tey jii ci kër gi boo fi toogee da nga fi gis waa Tiwaawan Serigne Saliou Mbacke Balla Dior Touba dëkk léegi la fi baw fii la toogoon waaw ñoom rafetal yooyu lañ topp seen maam yi toppoon ci lañ nekk ba ñoom ñëpp ñuy rafetal boo tubaabu bu xewlee lay caw lay day dagg yitteem ñëw fa moo tax bu xewlee tey ñëppay ñëw ñuy ñaan ku fi ñëw rek ñu xam li ñu fi indi muy màggal Seydina Limaamu Laay comme ni mu ko waxee woon comme ni ñu koy defee rek jàngal xuraan sikar bernde ñu ñaan suñu borom ñu teewe ko at yu bëri ci barke suñu waaye ñu ngi leen di gërëm yéen waa Sénégal bu baax seen teewaay jërë ngeen jëf. voilà donc euh, seet na bés yi mel ni tamit faaw am ñoo xamante ni dañ ci am cër ñi nga xamante ni dañuy tàgg yonent bi ki toogal di Seydou an euh, defe naa moom mën na présenter boppam euh, wax nu teewaayam ci bés bi ak ci li muy yëngu ak it li nga xamante ni tey ji moom mooy mbébétam ak ay soppeem yi koy teewlu waaye lépp nag spécial maanaam déjeuner royal gi nga xamante ni nag woote nañ ko fii ci kër sëñ Mor Thiaw radiyallahu anhu kon maa bàyyi la ak internet yi. ok salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ndokkeel bu baax ci bis bu màgg bi di bisu Seydina Limaamu Laay eh, waaye nag ñu ñëw tey ci sunu bisu xarit waaye sunu bisu soppe di sëñ Ablaye caw doomu sëñ moor Laay di suñu xarit di nit ku baax. tey invité woon ñu ci bisu maam bi ñu ñëwoon fii ngir tagg fi yonent bi ndax moom loolu rek la tax moo tax mu sopp na ñun nag bu la soppee ngir yonent bi boo ñëwee doo def leneen lu taggal ko yonent bi kon nag ñu seet naa limaamu kenn mënu ko tudd te tudd te doo tudd yonent bi tey bu doon barkeelu gu gàtt rek ngir soppee yi ndax mënta ñàkk lépp ci bés bi la loo leen di baaxee ak lan nga ñuy wax ci alayhi salaatu wasalaam ndax mënuñoo daje ci bés yi te wax nu yonent bi wa badaalil wujudi minka karimun sayyiduna muhammad min karimin abaa'uhu lkuramaaw kayfa tarxaa ruqiyakal anbiyaa'u yaa samaa'an maa taawalathaa samaaw lam yusaawuka fii walaaqa wa qad xaalat sanal minka duunahum wa sanaaw sayyiduna muhammad ma مثل صفاتك لنا كما مثل النجوم الماء kookoy Seyduna Muhammad kon nag mi ngi noonu barkeelu bàngoog. rendez-vous bi kon. kon bi léegi léegi lay doon incha allah jërë ngeen jëf. jaajëfal Seydou. يا ما أخفر الإنس والجنين رسول الله إليكم أجبا دايلا يا ما